ngi masawu yi ndax ku ne xam ne ne coono la dëkk am na dimanche la ñu am am na dimanche ñu jàngal kon taxaw ndax loolu ñu waru la kon xam naa ni ñaan nag ak dal ak déglu. ndax Quran bu ñu koy jàng dañu wax ngeen déglu da ngeen noppi kon ñu allah ñu fas yéene tàmbali liggéey bi ñaan borom subhanahu wa taala bu may ñu ak dégg ak topp ubbi dënn xale yi ba li ñu bëgg a jàll ñu kon kon ñu jox ci amal allah بسم الله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 siyaatuma al imam Alioune Sine ah, di ko masawu waaye di ko jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxawee kon yàlla na yàlla fay taxawu la te dëgëral la ba li ngay liggéeyal lislaam suñu borom defal la ci ah, li bëgg waaye li siyaat bu baax itam mbokk yi nga xam ne ñooy jàppale sëriñ bi ci daara yi di tuddee Serigne Mouhamed Ndiaye di leen suñu wet ak nekkaay yi waaye di siyaar Serigne Amar Mbacke xaas yi ak Badal Diop ak euh, Serigne Cheikh nga xam ne ñooy taxawu waaye di di siyaar bu yi nga xam ne ñoom itam ñoo am kóolute ak bëgg lu baaxu dimanche bu jot ak samedi bu jot ñu indi seeni doom pour ñu jàng li nga xam ne mooy alquran mooy téere borom bi subhanahu wa taala di leen siyaar leen ndokkeel waaye di siyaar itam kuréel yi nga xam ne ñooy saytu yi nga xam ne bés ñoo ko moom muy xale yi nga xam ne tey euh, buñ taxawalee bés bi lépp ñooma ñoom ñoo ko waral jigéen ñi siyaar leen ñaan yàlla defal leen taw ngeen li nga xam ne seeni wàllu bëgg la ko ci yéen pour borom jàppal ko da ngeen man faa àgg kon xam naa dama guddal dañuy rek tàmbali léegi incha allah di ñaan nag ok bu ko defee kon dañuy jox rek sëñ Bécaye mu jàngale tënk li ñu doon wax fii tàggee incha allah ñu doon a jox loxo yi ñu wéy. salaamaaleykum wa rahmatullahi innanzitutto ringraziamo i parenti sono impegnati durante, l'anno i vostri loro figli qua da noi all'oceano per imparare il Corano. È vero che questo è un dovere, però vi chiediamo perdono per tutto l'impegno che fate a venire qua sperando che Dio ti aiuta a avere tutto quello che stiamo cercando di mettere sulle teste dei bambini. Ringraziamo veramente col cuore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bi àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin kon dañuy tàmbale ci xam ne ñoo ñuy ubbil suratul fatiha xam gaay yi xam ne ñoo kanam man ñoo jàngal suratul fatiha ku ñuy wax sëriñ Xaadim soxna mooy moo koy jiite ko defee ànd ak moom ñu tàmbalee ko liggéey bi muy Serigne Mouhamed Diakhaté soxna Aïssa Dieng ak Serigne Abdou Souleymane Maymouna Coulibaly Mouhamed Fall Ilimane Lo kon dañuy rek jox Serigne xaalim euh, soxna mu tàmbalee incha allah suñu xaalim bismillah 手目からばにゃありは手よ手よ kiriman bu kiriman lima yang dulu Right common Soxna May Muna jullit la ñu dénkaat muy juróom benn yoo xamante ne ku ci jaar suñu borom nee na nga yónni saasal nee na nga sàbbi àjjana kon na la kon ñu jàll ci soxna lay màgget soxna lay màgget soxna bismillah Yang Maha Mouhamed yi mooy bari maa ngi koy jërëjëf kon suñu taalibe demal nga jël la neexal kon sëriñ Moussa Mbow nga jege si tontul masal day tontul masal ba Moussa di tari jërëjëf sëñ Saliou mën ngaa dem jàll sa place yàlla na yàlla fay la bismillah आएगा सरकार ने कुल याद अली कुल मोहम्मद से कुल मोहम्मद से नाले के कुल कुल पानी macha allah jërëjëf Adja jërëjëf kon bu yàlla dogalee ne sa doom mën na toog di jàng bismillahi rahmaani rahiim ba mu jeex di sant ak yàlla parce que samedi dimanche la ñuy jàng ci semaine samedi dimanche trois heures ba cinq heures te ñun ñëpp xam nañ ne xam na yéen parents d'élèves yi lu mel nii moo tax ñu leen wax naan jàppale ñu jàng xale yi parce que oustaz yi du ñu dóor du ñu xas li ñu mën mooy nga andil ma sama doom ma jéem nga def parce que ñun ñi jàng daara yi seen liñ def ñun ñi jàng daara yi jàng daara yi seen liñ def kon samedi dimanche bu ngay jël sa parent ànd sa doom mu jàng alxuraan non seulement ba ngay jóge ba ngay agsi bu nekk dina diyaw mais de temps en temps dañ la xëy dafa dem kàtt mais kàtt moo ko muy dem def yow dafa arab de kan moo ko wax na ci réussir te alxuraan bi ñuy xale jàng dina ci réussir fii dina ci réussir te yow parent bi yow sa bopp xam nga di jàpp ci la kon dama leen di ñaan encore une fois encore une fois lii seen yëpp parce que jàpp leen ne ñun mag ñi suñu wàllu wér parce que boo dee ba am cinquante ans ah yaa ngi jege kon nañ formé ñi parce que li may laaj mooy kër seen tubaab bi ba daayira yi ñoom ñoo ko yéene ñii la kon bu leen di wax kàttan kon ci alxuraan bi kon fu ñu jëm kon nag maa ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk ci kàttu baaraam beneen bi ay na xam ne maa bëgg a def soobu yow waaye dañuy jox ma wax ci barkeb alxuraan bi ci barkeb bis bi te ñun ñëpp xam nañ ne dañu nekk dañ koy koy sat benn moom te xam ngeen weer a weer jege te yenn saa yi ñu am difficulté pour fay ko kon nag kenn ku ci nekk bi nga toog yow yaa xam ne nan la ne alquran garam ñu ngi leen koy ñaan kenn ku ci nekk ba ko toog nga mën a jox addiyee ngir alquran loolu la ñuy di ñaan parce que kenn ku ci nekk nag la nga def si téere jëf bismillah dèjà gis ngeen histoire bii jàngale moom jox kon nag bu leen ko lu baax kon nag ñu ngi leen ñaan ci barke alquran ngeen ñëw joxe addiyee parce que vraiment situation bi ñëpp xam nañu ne day fay courant bi fay location te ku ci yor sa kër gi ñëpp xam nañ ñu demee kon nag ngir bañ a dugal ci kàddu yi ñu ngi leen dégg kàddu yooyu la ñu wax ne ko salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. tàcc leen ko ci kàddu yi. ndax kat euh, ku sonn la ci daara ji ku xam daara ji nga xam ci daara ji ak ñi mu ko amal ñëpp day liggéey wàcc ñëw. ah jàppandi ba ci wàcc kon nag yàlla na yàlla xëy na xëy na jërëjëf xam naa kon ñu joxe ak yéen tàmbali dal ñu déglu ñu jox kàddu gi sunu sëriñ sëriñ Kàmbu bu Kàmba nga xam ne ñu bari xam nañu ko ci waaw li nga xam ne mooy waaw lislaam kon bu bu ñu suñu borom taw fee xale yi bu fekkee jotaay bi kon mën nañu jaar ñu jox ko kàddu gi

moom lañ fi nekk di jaaxle bi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi am solo bii nga xam ne ko àndal suñu waral jot ñi suñu ma bàyyi bokk yu baax yi bokk nañ ñëpp ñu leen di nuyu góor ñi ak jigéen ñi nuyu suñu doom yi fekk mi ay naar nuyu ñu doon seen wéyjë wala suñu teew ñëpp rafet bu baax liggéey bu am solo bi nga xam ne suñu bokk yu baax yi ñu koy taxawee liggéeyu islam dara gën a màgg di teete te xetal ko ay doomi jullit rawatina ci réew mu mel nii nga xam ne islam bu dee tubaab bi lool donc lu baax bi daal di am na fi waaye dina xam ne rek eh, xamuñu eh, eh, ko ñu yaat lool ngir jaayante suñu siidi ñu ngeen àndal di jël seen wax seen baax seen i jot ak seen xam-xam te lépp. ànd kooku ñi nga xam ne ñooy wëññi xale yi ci baat yi jéem a def ci alxuraan loolu liggéey bu rëy rëy département boo xam ne jàpp naa ne liggéey daal duñ ko duñ ko mën ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax a baax rafetlu bu baax a baax a baax ci mën a soññaat rek sama bopp soññaat ci nag dañuy wëññi xale yi rek ñu gën a taxaw ko léegi di leen bàyyi ñuy dem ci jàng yi daara ji daara yi mel noonu yi nga xam ne ñoo mel ne moom cái ay alquran mooy li nga xam ne ak jullit rawatina gone ma leen ko jàngal dara alquran wala jiitu ci ab dundam dama ne bokk na mu aar mu gën ku mën ñu dem lam ca war a xam xam ko ca gën jàngi ba xam bépp xam-xam bu mu am tey su ko cái dana alquran li jiital ci ab dundam dina ko barkeelam da nga xam ne moo koy mu ngay jàngal si noonu loo xam daal la koy jàng koy jàng ci ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi soññaat bu baax ñu ngi leen a taxaw xam nga responsabilité la boo xam ne borom moo ñu gàll dañu wàcc mu fi yéen ñu ngi fi tudd am na ñuy gàll ndax bu fekk ñu tudd dañu rek ba màggal xam nga seen sa fekk di rafetlu seen sànq rek ñu jot ci ay gàll rafetlu bu baax liggéey bi léegi taxaw leen taxaw ba lay barkeelal leen ci alxuraan bi barkeel yi def lay parce que sëriñ si nga xam ne ñu jàngal ba seen yéene maanaam àgg ñu ko bëggee kawe ñoom incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Fallou kàddu yi rafet na yàlla yàlla may la dëgëral la barke sëriñ bi kon may nga am daal ak dellu kon mën nañoo jàll ci Sëriñ Mouhamad Fall Mouhamad Fall mën naa jege si Mouhamad Fall Mouhamad Fall kon kooku am na sëriñ ah imam Diop వాళ్ళు Baye Modou Diop Baye Modou Diop Baye Modou Diop Ndeye Fatou Mbow

Fatou Ngoné Diop 大家欢迎。 ñu ngi woon sëñ Mouhamadou Diaw sëñ Mouhamadou Diaw bismillah ay Diaw la sant jërëjëf sëñ sëñ Babel bismillah and enjoy. David Thank you. Yeah. praticato studiare il corano e pertenevamo anche ai trattati spazi e amici che siamo dati saremo per completati cioè sostegno insegnamenti dando ogni volta e di ricordare ai nostri genitori di incoraggiarsi e di dirgli che li trasmire il primo esempio. Grazie. Bravo Matteo. Direi che con tanto aiuto amee suñu borom gën koo dëgëral moom itam ak ñi wàllu liggéey bi yëpp kon ñu di gërëm di jox kàddu gi sëriñ Maimouna école Kolda la Sénégal. dama taw dama taw dama taw dama taw moom itam jàmbaar na mooy yàgg kon ñuy wax dañu gën a góorgóorluwaat. troisième bi moom sama benn xarit la xanaa sama benn dina ko xam

prossima volta non saranno sicuramente i primi ma ci saranno gli altri perché so che siete bravi tutti quindi coraggio, forza andate avanti così su questa strada che ci sono gli altri ragazzi in giro che non sanno quello che sapete voi quindi siete avanti e questo è già un premio avete pensato benissimo, fate un po' di jabaate on fuɗɗeni ɗoɗe sono satti on ɗenɗi ɗuɗɗi ena paasi paɗe paatiken ma aɓeene approché ma feere rewiɗo comme nima kamna kadi ɗum seeni bonnimaka waɗa yahotaɗi ɗon sa ɓoowa xamuñu ko goɗɗo fosi ɓoowa ɓiɗɗaɗe ene jom ñëpp ay ñamaɗa mais comme ñetti nit ñetti prime moo fa nekkoon mun ñoo prime jox ñetti prime une fois am na ko jël ñii doon doon dara xaw na am ay jafe-jafe ci kii yëpp yooyu la ko mën a jëlee mais en fait moom bu tànn ñett ndax tànn moom moo demee noonu tànn demee noonu comme nag euh, ñu ngi sant ñëpp di su ma xam ne par exemple ngeen soññoo xale bu góor bu ndax lii nii yomb damay wax ne ana sa doom nga demal ak seen si jàng jàng alxuraan ndax mu ñëw fa xam benn saar la ko xam yemoon ak dara ndax ala sama bopp nga ne nga ne dama koy gis si tànk mu jàngal ko waaye yaakaar naa loolu lu ci gàtt gàtt tey war a xam ne moom la dal am benn ci nga ala sama bopp nga ah génn nga xamoo fu mu nekk ndax xale yi bu ñu ñëw ci daal bi dana dem feneen fa ñu dem nag xamu leen lu koy fekk ak lu koy jëlee ndax ba bari ñu am dëkk bi suñu xoolee ba ñu gërëm rek am na benn laaj bu amoon na producteur bi nga xam ne waa association man ma yow benn wax mais am na yu garaaw yu am ci dëkk yoo xam ne tey yàllaa ko ci musal ñu grâce ak lii am na ni yéen koy def kon loolu leen di soññiwaat ngeen gën ci am taxawaay surtout nag yéen yaay yi ay moom damay leen bàyyi ñoo ngi koy jox wala dañoo amul lu dem ci dinaa ko dem defal ñu ko yéen a nekk ak xale yi yéen a leen yéen a am ci ñoom dara kon jàmm dimbali leen ñu ngi yàq dimbali leen ñu ngi léeg-léeg ñu ko bëgg a ñëw surtout ñi nga xam ne dañoo dëkk ak ci wàllu ci côté administration ku la jóg ne day jaay li tax ñu ubbi tur bi waxoon naa mooy dañ li ngeen tax ñëw na jaay sama dëkk ndax ñi nga xam ne da ngeen di accompagner da nga xam ne moom day day amoon ci daara mais ki nga xam ne dafa jóg jël daal di ñëw wala ku jóg dox ne day jaay li ngeen di tax ñëw na ci daara wala ñëw man am na ay daara yoo xam ne comme ak jaay ma woo leen di leen laaj seen jaay loolu loolu am na am na ñoo fi woo kon nag loolu dañ koy mën a année ngeen mën kon nag message bi loolu la ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ndax nag li ngeen def yomb sant bu nekk ngeen bàyyi seen i prix bind xale yi ak ginnaaw yomb mais nag foofu la foofu la

ku ne nag jiw mais dafa am ñu nga xam ni xëy na foog ñu sant rek parce que ay kuréel la yow lay am rek kii di monsieur Bokar Cissé fédération Tidiane rafet nañu teewaay bi monsieur Matar Kanji président association Cheikh Amadou Bamba ñu rafet nañu teewaay association bi di dimbal les Sénégalais de près chaque province surtout monsieur Oumar Diop gis nañu ci jàppale bi nga ñuy jàppale association des Sénégalais de presse la province monsieur Seye teew na itam ñu ngi rafetlu seen teewaay ak suñu mbokk yu baax ak ustaas yu nga xam ne dañ leen di boole seen remerciement yi muy monsieur Mohamed Ndiaye muy Mamadou Thiaka muy El Hadj Niang muy Seydou Wanda muy Abdoulaye Samb ak Seydou Omar Hassine Mbacké fekkee nag am na lu ma fàtte na ma jégal ndaxte yàlla dafa dogal xam nañu ñëpp te ak bis lañ ma jox rek léegi dama bëggoon jox parole monsieur Seye pour mu sànni ay kàddu ci turu association des Sénégalais de prêche et progrès merci monsieur. dañu wax ne bu ko bëgg a seetaan ñu ngi doon sax vision fii Facebook waaw bu ko bëgg a seetaan ñu ngi doon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته loolu la aussi aussi réseau bi AS bi ànd ak sama jigéen soxna Aliou Badji nekk responsable DEPA lii dafa seetlu xool mais dañu doon ndaw mais nekkul lu ndaw lu lu bëri la ndax mënuñoo am lu gën a xool alxuraan mënuñoo am tamit lu gën a kawe suñu njaboot nekk di jàng alxuraan en eh, tant que parent damay sonal sama bopp di leen sonal ay parents yi parce que lépp ci yéen lay doon te yéen xale yi xam xale yi mën nañoo bañ a am njëriñ waaye yéen ñi bañ a doon yéenay am njëriñ te bu bu leen jëriñoo lu gën koor baatu yàlla yi muy am ràññukaay yi di remercier suñu kër yi ci toog ndax kat mënoon coono gi mënoon na leen bañ a fekk waaye nag. xam njëriñu alxuraan te bëgg cee jëriñu moo tax mais mënuñoo def lenn te nit ñi jàppale ñu leen dañu soññ suñu doom yi dañ leen di ñaax di leen encouragé ndax kat mënuñu ko leen am bu gën a rëy di leen remercier yëpp di jégalu ci kàddu yi di ñaan yàlla fi am buñ fi am yàlla ko bëgg bépp jullit yàlla am na ko gën a yàlla ko yàlla def salaamaaleykum wa rahmatullah

te yaakaar naa xëy na wax bi waxam sax li jublu ci benn benn bu ñu gën a aay ñu gën a xam ban la laal fa kon sëñ bi waxoon gis nañ la macha allah dañuy sant di gërëm parce que sëñ si bu soñoon képp ku nekk Brescia ak foo mën ci nekkee même boo nekkul Brescia nga yëngati ci alxuraan bi sëñ bi dana ko yëngal waaye xëy na doon na xataa boo xamante ni moom bi koy commencé sax ñu ko nekk Sénégal kon képp koo xamante ni xëy na ñëw na te sëñ si seen jaww ji tam jàppal ne kontaan na ci yow képp koo xam ne tam ñëw amoon nga yéen ñëw seen si kontaan na waaye daal mosul woon dina gën a yàqal ci biir fànn yi xëy na incha allah dañu ñaan yàlla ñu def ko chaque année bu ko defee xale yi gën a gën a góorgóorluwaat maanaam suuf yéen ngeen dal njàngamu xale yi moom la yéen da ngeen defaale suuf ci yenn saa xale yi ñoo xam ne bu ñëw rek kàddoon bu xam ne même boo xamul ne même programme bu mel ni maanaam dañ koy avocat traité bi nga retour sa réew loolu day joué dara ci xale yi bu la defee moom bu constaté wu te ngeen wàññi téléphone yi ci xale yi nañu wàññi téléphone ci xale yi ndax yenn saa xale yi day ñëw daal si toog di la toog di la da leen leer ni ci xëy na ñu dem téléphone bi yenn saa yi moom yaa ngi di am na ay genre góor yoo xam ne bu ngeen ko defee ci xale yi yéen bu xale yi mënut ko jógaale daal si téléphone yow ma tàmbali sa dëkk décoré téléphone du ma lay gis mën a def dara lu ñu am na parce que dara ko ñu ngi tas ànd kon ñu ngi jënd baax donc kàddu gi yow laa sa ji waaw waaw président ñu ngi jënd ñoom ñoom ñoom. salaamaaleykum maa ngi déglu te moo tax ba tey ginnaaw yàlla li mu sama muy monsieur Touré monsieur Touré gërëm nañ la sant nañ la amuñu sa fay yàlla na yàlla fay waaw ndaxte doomam nekkul si daara bi mais bañ ko ko waxee dasi taxaw ba tey moom pour saa bi moo ko fay ak xaalisam décoration yi gis yëpp kon moo ko def dafay dem ñeent jërëjëf monsieur Touré yàlla na yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah man xam naa day jox service bi chị đồng giúp mình đi bay và chị mang đi ra mình lên phố sẽ đi ra đi nên là chị đồng mình đi bay và chị và cái lúc sau mình làm đấy còn những người làm sự của cả nhà học này một mối gì thế cái cái làm gì cái sao nhưng đúng ak sëriñ bu sëriñ bu sëriñ bi nga xam ne mooy représentant ASD bi ak association Sénégal yi nekk ci président promesse bi ñu ngi ko joxoon nañu teraanga yi ak jëloon seen si jaxata